ay révélation de taille waa groupe Top Cas ñu ngi tàmbalee di ko amal ci jëkkëru kii di Bijou Ngoné Nabou Leye daal dinañuy révélé ne moom nag elle est totalement innocente laale wut te takkewut benn yoon ca faatub kii di Aziz Dabala dal leen ak jàmm mbokki internet yi ak Miss News 221 ñu daal di ñëw ak yéen ci l'actualité daal di koy tàmbali nag ak waa groupe bu Cas yi nga xam ne ni ki démb wala baax ki démb sax dañoo jot ay post en anonymat yi nga xam ne nag dafay daal di amal ay révélation ci kii di Thierno Ndiaye nga xam ne nag moom moo daal di takk nag eh, kii di Bijou Ngoné ci premier post bi nag eh, li nga xam ne daal dinañu ko fay fësal mooy animatrice bi di Bijou Ngoné nag eh, la mu foog nekkul ndax moom nekkul aawo aawo comme ni nga xamee ne noonu la ko annoncé Thierno Ndiaye am na benn xale bu jigéen ba nga xam ne ñoom ñaax nekk nañu ca bu mu sëy ba noppi te kookee mu ngay wuyoo ca tuxu alima moment yi nii nag ñoom ñaax dafa am ab différence ba nga xam ne am na seen ab diggante maanaam dañoo xuloo xale bu jigéen bii di alima nag daal di nit ñibbi ca seen kër mais nag wàllub divorce bi nga xam ne ñoo ngi koy wax nekkul dëgg nañu ko jël daal di koy teg ci suuf ba tey moom mi nga xam ne daal dinay def bii les postes en anonymat daal dinay xam le ne alima moomee nekk naka nga xam ne daal nay yaru lool nekk naka nga xam ne aussi am na taalibe teranga dongo la seek ak ay xaritu ceex Thierno njaay ay nitam ak ñi nga xam ne ñoo nekk ca famille ba ñoom ñëpp même baat bi la ñu koy seedeel nee na nag bii dee mbir bu fekkee am na kenn ka nga xam ne dañu ko ciy joxoñ baaraamu tuuma du doon kii di ngoone Ngoné ceex Thierno lay doon ndax xale yu yi daal ñoom ñoo daal di doy waax

maîtriser wut cas bi pendant ce temps là nag moom la principale concernée di Bijou Ngoné kenn déggaatu ko mu daal di yëy yàbbi ca li ni mel ca njëlbeen ga daal li nga xam ne waxoon na ko moo nekk bii leesey nga xam ne nee nañu moo nekk juróomeelam bëgg na daal mu doon nag dernière fois bi nga xam ne sénégalais yi ca koy souhaité ab heureux ménage euh, bu beneen ñu yónnee bu fekkee dañu ko nar a wala ñuy nar a ci internet bi naan dañu koy félicité na nekk tout simplement parce que dafa daal di jural euh, njaboot ki nga xam ne moo nekk Thierno Soxna Njaay moomee nag ñu daal leen fàttali ne mel na aussi dafa daal di nekk jagañaale ca waa kër ñoom Kati Chimère Diaw ndax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk a posté di ko félicité bokk nañu ci aussi daal di nañuy gis euh, kii di Keyna bi bi nga xam ne mu ngi nekk rak ci kii di Kati Chimère daal di waxoon kii di Bijou Ngoné bienvenue dans la famille te moom moomee aawa yaay la ko bindal kon nag ñi nga xam ne daal dañuy jéem a chercher ay rumeur wala di jéem a créer ay euh, mbir ya xam ne kenn xamul fan la ko am na sax ñi nga xam ne dañoo njoxtu ne ay jagañaale femme bi nga xam ne daal moom moo daal di divorcé la ñu daal di leen fàttali nag ne kii di Bijou Ngoné moom aussi li mu le woon bokk na ci ne moom ak kii di Thierno Ndiaye ci weeru août bi ñu génn la daal di xamante mu daal di koy takk ci weeru novembre bi ndax moom dafa nekk nga xam ne xajul ci ay caaxaan ñu daal di ñëw nag mbokki internet yi ba tey ca kaawu kii di Nabou Leye Fanta Seydi actrice bi nga xam ne mu nga nekk foofee ca série famille sénégalaise ni ki démb daal dinay euh, dégg madame moom nag euh, gannaaw bi nga xamee ni alxayri bi daal dinay jib ñu daal di gis ne nag euh, kii di Griff Diouf nekkoon na fa ci nag question yi nga xam ne yenn ci ay internet ñu ngi ko doon posé mu daal di attirer attention ñu bëri bokk na ci ci moom moomee di fant bu ana lan moo tax nag mu daal di fekk ji yenn ci célébrité yi nga xam ne dañuy nëbb seeni borom kër mais nag ñoom critique bi daal dañu ko jëmale ci kii di Griff Diouf ne nag xanaa xamuñu ne bu fekkee ni parfois gars yi nekk ñu di nëbb ñoom ñuy génnee duñu respecté seen rôle influenceur yi nga xam ne moo tax ñu leen di topp ñu daal di leen bàyyi nag ngeen seetaan yenn extrait vidéo yi nga xam ne daal dinañu koy jëlee ca mariage Fanta Seydi bi ñu daal di gisaale nag ci ñi nga xam ne daal dinañu fay teew kii di Soxna Bato révélation de tay bi nga xam ne kii di Pape Ndiaye moom moo ko daal di amal mu daal di fekk yi sax ay kàddu kii di kër kewuloo moom mi nga xam ne lu yàggul dara gisoon nañu ko aussi mu daal di amal ab révélation bu day wax sur le cas de Naboulay xam la ne nag laalewul te takkewul benn yoon ca faatub kii di Aziz Dabala takk dex buubaale ko ca boobulee dossier li ni mel nag nekkul guléet gannaaw bi nga ne yëkkati ne yooyu lay kàddu nit ki tey daal di nañuy gisaat euh, kii di Pape Ndiaye mel ni ko ci daal di fekki na nag kii di Nabou ci dossier Aziz Dabala bi du début à la fin amul benn yoon ba nga xam ne daal di ko ci takkal Nabou est totalement innocente plus loin moom Pape Ndiaye nee ay fan di ñëw bu fekkee yi sax dañoo xëy gisaat ñeneen ña nga xam ni libéré nañu leen alors que tegoon nañu leen loxo ci juróom-benn nit ñi nga xam ne ñoo ñoom lañu ñu te jàppee woon ca biir dossier bu mu jaaxal kenn maanaam dafa mel ni dafa am benn enquête ba nga xam ne dañu ko bâclé woon ngir daal di mën a tëj gémmiñu sénégalais yi wala nag benn enquête ba nga xam ne daal na kenn mënul xam sax fan nga ciy dóor sa loxo ci lii moo tegu wala déet comme ni nga xamee ne nag journaux yi noonu nee la ko xamalee woon dans cette affaire euh, benn nit dong moo ci daal di faat bakkente nangu na ko muy Mamadou Lamine Diawo kon nag nañu xaarandi gannaaw kii di nabu Leye ni dina am yeneen nii nit ya nga xam ni mën nañu leen libéré ca kaawu kii di Aziz Dabala ñu daal di gis ne nag de plus en plus ay nit ñu ngi génn di persister ca wàll woowee Nabou Leye naka mel na ne finalement dafa mujjee daal di am dëgg ca kanamu sénégalais yi ndax moom depuis ba ñu koy teg loxo ba tey ca baat boobee la tegoon tànkam ba ci sëru Aziz Dabala bi sax nee na ba mu ko seeti jeeka so ñoom ñaar ba ñu jàkkaarloowee aussi baat boobee la ko wax daf ko ne laalewu ma te takkewu ma ca faatub kii di Aziz Dabala li mu ma lebal yëpp munuma kaa fay lu ñaaw li nga xam ne moom la ñu may joxañ naan man maa ko daal di def donc Nabou Leye nag finalement mën nañu ne nag daal dinay mujjee am raison denc ca bopp sénégalais yu bëri mooy ndax ki di Nabou Reye li nga xam ne daal dina koy ñàkk ca bii lee tuuma ndax dina ko daal di mën a dabewaat wala ndax moom Nabou Reye dina mën a jotaat place bi nga xam ne amoon na ko ci euh, réewum Sénégal particulièrement aussi ci li nga xam ne moom moo nekk métier aar bi nga xam ne moom ca lay nekk di dox am na nag lu ko métti lool mais nag jamono yuñ toll nii la mu gën a soxla mooy nit ñi daal di koy taxawu jàppale ko internet yi nag ñu ngi tàmbali naan jot na ñu daal di koy baalu ndax nag fàttali sax ne kii di Pape Ndiaye nee na kenn ka nga xam ne jege woon na lool bii les dossier dafa doon toog naan moom bu sukkandikoo ci li muy dégg ci internet bi souvent dafay samp laaj naan ndax est-ce que même Nabou bi est-ce que faatub kii di Aziz Dabala ca la ñu nekk di amal révélation yi yëpp tellement li nga xam ne tiim na ko ca dossier ba di ko gis ak sénégalais yi li ñuy fësal ci internet bi daal dinay utee lool bàyyi leen euh, ngeen seetaan vidéo yi te ci mën a xamal mooy birum euh, Aziz Dabala bi bëri na lu ñuy wax ci pénc mi mm-hmm. ci mbedd meeg ci réseaux sociaux dara du ci dëgg. Mm-hmm. waaw ay temps bu ma daan wax nag ñu bëri lu ne daan naa ko dégg nag. Mm-hmm. mais yaakaar naa ne fay commencé nañ ko démontrer. effectivement na ay lépp lu bëree bëree bëri lu ñuy wax ci dossier bi dara du ci dëgg en tout cas nekkul ci dossier bi. man dama doon waxtaan ak benn kilifa bu jegee yëf yi bu jegee yëf yi dossier bi. mu ne ma mm-hmm. mais man bu may suivre réseaux sociaux yi ak mbedd mi maanaam gars yi li ñuy wax ak man dossier bii ma tiim nii est benn yi ci am. dafa yi dañoo seen dossier boobu fee yi mënaguma cee sori parce que dossier bi dafa nekk ci enquête mais lenn képp laa la mën a wax pour résumer lépp mhm. mooy dossier bi ba dossier bi daj mhm. enquête bi nga xam ne dig jox na ko def na ko ba jébbal ko yoon mhm. amul lenn benn tuuma benn preuve benn indice buy taqal na bu lay ci gàttal loolu laa la ci mën a loolu laa la ci mën a tegal te bu weesoo na bu lay uh-huh. bu mu leen bet mu am ñeneen ñu ñu setalaat ci ñu nu bàyyi waaw te man loolu damaa gëm ni jàpp ni dina am dina am ñeneen ñu ci setalaat loolu moom nañ ko sóoraat ci ci ci ci jamono yi di ñëw. loolu leer na. Nabou Leye est totalement innocente. Mm-hmm. loolu moom amul lenn lu koy takkal ci kii bi maanaam mm-hmm. jàpp bi sax warul woon. Mm-hmm. jàpp bi. bu doon bu bu bu ci yoon jàpp bi sax warul woon. mais kon lan moo tax ñu jàpp ko. waaw mais xam nga xam nga. wala tension bi la ñu bëggoon a. Euh, wàññi ñu ngi doon soog a ñëw ak noonu noonu. mais ah. normalement jàpp bi sax warul woon. am ne ñeneen tam ñu ñu jàpp dugaleen ci dossier bi. seen yoon nekku ci. dinañ ci seetal ñeneen loolu moom moom c'est dina am ñeneen ñoo xamante ne moom seen setal ñu setal leen moom mm. mënta ñàkk ci yëf. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga moo tax euh, euh, yéen xam ngeen ne man maa fi dax critiquer justice. man li ma leen di critiquer moo ëpp li ma leen di. ànd ak mm-hmm. bu amoon jalgati ci bàyyi bi ñuy bi ñu ko bàyyi maa njëkk a toog fii di ko. teguñu ko mm-hmm. justice dafa am nu mu doon doxee ci nguuru Macky Sall bi fi weesu. Mm-hmm. mais dafa am su wax dëgg yàlla justice mi doxinam mi ngi soppeeku. te Nabou Leye mhm. loolu na ko sante nguur gi fi ne mhm. soppi bi ñu jubbanti justice pour que muy doxee ci neneen mhm. parce que yeneen nguur yi fi weesu li ñu seetlu woon mooy ay innocent yoo xam ne dañ lay taqal par force jéem laa wutal ay preuve taqal la ci yëf yi mais au moins bii nii nii ci cas bi nii commencé nañ jubbanti lu bare bare bare naam am na lu des nag mais mhm. am na lu bëri bëri loo xam ne kii donc man dama lay confirmer li jàpp bi ñu jàppoon na bu lay warul woon ndax amul lenn lu koy tuumaal ci biir dossier bi ba tey euh, ci li nga xam ne mu ngi lëmbe internet bi ñu daal di ñëw ca présumé couple Mame Ndiaye Savon ak kii di Fou comme ni ngeen ko xamee ca ab live ba nga xam ne nag kii di Nogay moom moo ngi ko doon amal en compagnie de Maman Vulgaire ak kii di Mame Ndiaye Savon la mu ko waxoon nag moo nekk jamono yuñ toll nii fi nga toll nii sa àdduna boo dee moon daal nag bay sëy ak góor su ma sañoon dafay daal di nekk ki nga xam ne moo nekk fu ndax moom lépp fekk na ko fi te nekk nag nga xam ne bëgg na la am na sa yërmande mais aussi sa alal yóbbuwul fitam foofee nag la ñu tàmbalee gis ne internet yu bëri daal mel na ne boobulee couple dina nekk la nga xam ne dina leen enchanté ba ci euh, noce de coton bi nga xam ne kii di maman vulgaire mu ngi ko doon def ñu gis ne Mame Ndiaye mu ngi fa àndoon ak ki nga xam ne moom moo nekk fu ñu bëri aussi daal di gën a applaudir li ni mel daal di xam ne nag kii di Mame Ndiaye Savon jamono yuñ toll nii bu fekkoon dafa dem ba nar a duggaat ci néegu sëy na dal di tànn ki nga xam ne moo nekk fu bu ñu sukkandikoo ca kaddu yi nga xam ne ak témoignage yi nga xam ne moom moomee di Mame Ndiaye mu ngi koy defal àll l'encontre de fou mën nañu ne il est le ñu bàyyi leen ngeen déglu kàddu yi nga xam ne kii di Mame Ndiaye mu ngi koy yëkkati di ko jëmale ca moom moomee bu ba may ànd ak moom boobu bantane laa yor muy ñëw di ma cag-cagal démb la ñu ma ko yàq nekk wax ko nekk wax ko ne ko musoo maa defal nekk ci pantere appartement gisoo ma Samba gisoo ma Demba kenn nit nga gis ci man lay lekkee fa lay naanee yeetal samay doom ba ñu nelaw mu doog a dem eh dama ne kii longo histoire la daw ma ci moom yottaar daw ma ci moom dara dañuy rayante nag amul bis buñ dul xeex barki démb la ñu mujjee xeex man ak moom billaax wallaax wal kitaab waaye bu ñu rayante day bàyyi ba ma tëdd su ma tëddee mu yot nànk ñoo ubbi tëdd dugg si néegam tëdd su ma xëyee man maa gën a ñàkk jom ñëpp su ma xëyee damay ubbi néegam ne ko yow yaa ñàkk jom mu daa di reetaan ma reetaan ñu kottante ku ne jubóog sa moroom bañ na ko ba damaa dem ba dafa bokk ci man fuu bu ma ko gisul loolu lu amul seede neexul barki Seydina Muhammad amul gal xamal da amul gel nee na moom bu amee gel temps bi muy perte di wax ak gelam pour moom taaboo boobu muy perte toog di wax ak jigéen man dama cee war a ñàkk ay millions waa kon kii moo gore waaye kii moo gore waaye nag tubaarkàlla macha allah comme yow yaa man a gore yow miy xale bu ndaw wala dox sa jeunesse te doxoo ko ndax man mii toog jël sama temps yëpp sa temps bi ma jël ko waaye xam nga ni séq nga ko góor tubaarkàlla ba nga waree dawal ak boîte yi damaa dund bu wér bu ñuul ku ko jox la amul sa benn moroom nekk fii Pikine di bi ngay dawal Misal ngay dawal kat kat bu ñul kuk nga ndim kat kat bu rombe ñepp xamni ni carrément kii fuumu mam jaay savon la sa bat bi ku ko xol dula jep jëpp tubaarkàlla benn chaîne bu ci nek 400000 la ko jëndee ben chaîne bu dee 400000 nga takk ñetti lalal basal tubaarkàlla nak kon tubar tubaarkàlla nit ki euh, nit njariñ waye ah, jama jamono euh, nuñ koy waxatee daa ngay aduna beut té tamit sama doom di toog nga ci man beur bi bu ñu dara tàkkale waaye nee naa la tubaarkàlla macha allah leen rek laa la mën a faye mooy jox la terrain rek su ma la joxee terrain nag moom nga doon jàmbaar doon jàmbaar ki nga bëgg a doon tabax sa kër def lu la saf ndax man nii maa ngi sant yàlla di julli cooco man sénégalais ñoo ma jàppee dof mais man du ma dof pikin fii ma dëkk barke say dinaa Mouhamed quatre triponsé quatre man ci sama bloos man fi sama nday sonnee fi sama nday tumurankee fi mu sonnee quatre titre foncé quatre man maa ko moom tubaarkàlla macha allah man sama doom yëpp laa may teere laa may kër barke arxuraan kon man liggéeyuma di sëlëm mu jëm ci kaw man damay sëlëm mu wàcc ci suuf sa sa sama doom ji nag yaa ma dooleel ndax nit di nga ànd ak moom vingt jar nit di nga ànd ak moom ba dara dul dara nga commencé avancé mu teg la bët ndax loolu moo am Sénégal loolu moo am Sénégal muy ma yoru dara sa bopp góor yow bàyyi li ngay wax eh, eh. ne ma jàq ma di la wax eh, kii jamono ji eh amul daal ku ñëw ci yow xam lu muy ñëwee ci yow bër waaw ak CFA doo xam ne ki la bëgg ak ki la bëgg waaye sama waa ji nga xamante ne ku xul ku xula démb bi nga ñëw ci baas ba neex na saf kaani wax ma sëdd ko ma wax la ci nga doon faale woo million yu mu yor bu mm. ko leen nga doon ko ci table bi ne ko lijjantiwuma loolu wan ma sa xarit ma wax la fi nga doon yaay doomu ndayu Cheikh Ibrahima Fall ngeen nekk xale di ànd di bokkandoo même maa ko fekkee nga gore suusa jaay ko sàcc ba tey. Eh, man ko sàcc. Eh, mu ngi xaar nga yor léegi dem ak moom yóbbu ko xoolal xoolal silip jaay na ko silip sa fu jaay na ko silip. yaa ngi dégg. silip fu jaay na ko ak si jeex. nga tina foos. nga tina foos. nga tina foos. dina la rey. moom Seydou dañoo doon ànd di nga ci foos. moom Seydou dañoo doon ànd di nga ci foos. wan ma sa xarit ma wax la ki nga doon. Hmm. maam fu loo ko jàpp ขาอามันยอเขามันจะนบุญเนี่ยแค่เดี๋ยวนี้จะเข้าไหวบุญแม่เธอเดี๋ยวนี้เดาเด็ดเดี๋ยวกันนะจะผูกขาดบุญเดาเลยเดี๋ดวนี้เด้า mi ngi taxaw bu dee yoree xaasu maam Ndiaye maam xaas nii la koy fanaandoowee boo ko laalee bu nalaw. eh ak ka bëgge. jàppal boo la. bu deux jours la. ah maman bu ma di lay wax sa doo toxoo mayoo yàlla lan la. on se bilaay mi la seytaane rajim mu jéem. ci dëkk ah ci kaw. dabal tegal ñu loxo bi nii rek tegal ma loxo bi nii waaw rëbb sa loxo bi tuuti. baax na de baax na de.